lu bëggoon wax mooy que ne bu police jàppee drogue dañ koy wane magnifier ko filmer ña ko def Fatima wax na léegi ci jamonoy couvre-feu bi suñ dóoree ay sénégalais dóor ay liif teg leen ñoom dañ ko wane bu contraire bi amee ñu jàpp ka ko mais c' est aberrant c' est aberrant au contraire état du Sénégal dafa waroon encourager actes yu mel noonu pour que yenn corps yi nga xamante ne dañu gis ne que dafa am corruption bu baax a baax a baax ñu mun a xoolaat seen taxawaay xoolaat seen doxalin. wax nañ ko on ne dit pas que yëpp ñoo yem parce que police chaque jour nga gis sénégalais yi filmer un policier célèbre ku tudd amul yaakaar. di ko magnifier li muy def parce que liggéeyam la c'est ça son role kon bu safaan wa amee ñu wane ko c'est pour que police ci boppam jël ay dispositions c'est pour que l'État ci boppam jël ay dispositions mais boo amee état bu cuune boo xamante ne nii face à la corruption amul benn politique bu mu ciy teg lu dul parce que xëy moom ci boppam moo gën a corrompu que que que que branche yi gën a ndaw il faut pas qu'on s'y trompe corruption bi ça va benn échelle bu gën a graaw mais image bi li ci graaw mooy kii banque mobile c'est une banque mobile et article bi tax ñu ñuy oo DJ Malick ban article la ñu ne euh, image lan euh, nu mu tëddati image données personnel est-ce que c'est personnel quand un policier est dans la rue di di racketter les Sénégalais ça c'est pas personnel je suis désolé image personnelle mooy un policier c'est lui chez lui bu toog ak këram ak ak njabootam wala néegam wala autre chose mais ku taxaw ci mbedd mi di racketter des Sénégalais ay 2000 francs mille francs di indi insécurité parce que ku amul ku amul këyit mu bàyyi la nga jàll ku sa oto nekkul en règle mu bàyyi la nga jàll ku leneen ak leneen ak leneen leen nekk mu bàyyi la nga jàll yow yaa ngi exposé les sénégalais ci ay danger kooku dañ ko war a dénoncer et man de j'encourage tous les sénégalais yu mën def ñu def ko et su ma ko mënee dama koy def et j'ai posté la photo cent cinquante mille fois cent cinquante mille fois je l'ai retweeté man et je l'ai partagé et tous les sénégalais l'ont partagé aujourd'hui la police n'a qu'à venir arrêter onze millions de sénégalais parce que photo bi bi bi ko ñoom Dijé Mari posté tous les sénégalais ñoom ñoo ko partagé c'est aberrant lii xeluwul na état du Sénégal sérieux te bàyyi caaxaan ça sa s'appelle la corruption et dafa yàq koor koor boo xamante ne nii koor bu solo la koor bu war a gën a mun a am solo la ci réew mi et ñëpp ñoo mel noonu l'image la police est ternie par des personnes yoo xamante ne nii gëmuñu dara et loolu dafa ñaaw nous exigeons que état du Sénégal jël ay responsabilités ñu chan sanctionner cet individu parce que dafay yàq koor police bi parce que dafa yàq image du Sénégal aujourd'hui les États est-ce que État du Sénégal day dem porter plainte contre les États-Unis pour données personnelles parce que les États-Unis ils ont publié un article pour wax que Sénégal bokk na ci pays yi gën a corrompu ci monde bi on est douzième en corruption huitième ci corruption ci àdduna bi kon quand des citoyens sénégalais ñaawlu ay actes yu demee noonu jël ci seen responsabilité ñoom la ñuy jàpp mais vous êtes en train de décourager la citoyenneté dans ce et vous êtes en train de radicaliser des gens yoo xamante ne peut-être ñu ngi nekkoon ci si beneen ci beneen côté di di di liggéey ci Sénégal bi kon ñaawlu nañ ko et bugg nañ état jël ci ay dogal ñoom DJ Malick nañ leen bàyyi ñu dem seen yoon ñu bañ leen di leen guddeel bañ di leen tàddal ñun on vous encourage et ñu leen di wax ne leen ne lu ngeen ci gën a mën a def redoubler de vigilance aujourd'hui les citoyens vous êtes aussi la police vous devez protéger les citoyens vous devez protéger le Sénégal et l'image du Sénégal man de personnellement bu ma doxee ba fekkee ak bu mel noonu danaa ko posté bu ba lu ci lu ñu ci góobee gar ko donc nañ waxaat encore une fois de plus ñëpp c'est pas tout le monde du policier yëpp ñoo mel noonu waaye policier yi nga xamante ne nii ñoo ca mel noonee police ci boppam na jël ay responsabilités génn leen ci seen ay fonctions wala ñu daan leen ba askan bi xam ne daan nañ leen parce que li ñu nekkee du dëgg du yoon te ñaawlu nañ ko.